que tey Ziguinchor a une journée de tension extrême euh, lii gën a tiital nit ñi sax mooy euh, situation sécuritaire bu bu Ziguinchor euh, ñu bari ñuy xeltu ci wàllu sécurité jàpp nañu ne situation bu mel noonu warut am Ziguinchor parce que mun na nekk nga nga mel ni rek da jël almet kos ko yokk ci ci ci taal bi waaw oh, mais mun na c'est très inquiétant surtout comme ni nga ko waxee zone boobu ne c'est une moo nekk zone bi gën a compliqué si si dëkk bi mais toujours est-il que ñun euh, ñun waa taxawu c'est toujours difficile pour ñun d'analyser op euh, euh, option ak posture yu leader Pastef jël. Mhm. c'est toujours difficile parce que ñun dañu am problème ak justice. et à l'époque je me disais ñun ñëpp dañu nekkoon dans logique de combat posture de xeex et à chaque fois le président Khalifa Sall nous disait il faut faire confiance aux institutions Khalifa Sall dafa mos wax je fais confiance à justice. gis nañ li mu ñu coûté ça a été trois ans de prison ça a été yoo xamante ne de manière totalement anormale tey bu beneen acteur politique nekkee dans la situation wax ni que man dans une posture de combat je suis dans une posture de désobéissance civique c'est difficile à accepter quand on est républicain mais c'est difficile aussi pour nous d'avoir un avis euh, sur le choix qu'il a fait parce que on ne peut pas reprocher à un homme politique de se battre pour sa dignité politique et c'est ce que Ousmane Sonko est en train de de forcément il y aura un retour de bâton vous ne pouvez pas faire ce que vous êtes en train de faire champ politique sénégalais éliminer les gens utiliser la justice sans que mu am des conséquences la conséquence c'est c'est l'arrivée de ces partis là la conséquence c'est qu'on essaie de faire la même chose avec eux et ils ont choisi de se battre autrement cette situation là va engendrer aussi d'autres conséquences puisque tey bu ñu demee tey la question qui va se poser c'est mais qu'est-ce que ça va donner à l'avenir cette posture bi ñu tëj Ousmane Sonko ba mu obligé xeex ni mu xeexee adopter des postures avec avec le verbe qui va avec gasta gasta ainsi de suite qu'est-ce que ça va donner demain je pense que il est important pour chaque acteur politique de regarder l'avenir de dire que ma responsabilité te acte bi may posé. Ah, qu'est-ce lan lay joxe suba ban conséquence la mën am ban jeexital la mën am ci askan bi ak ci xale yi ni ñu koy comprendre demain n'importe kii mën na wax ni que man du ma dem buy justice wala demoo n'importe qui mën na wax damay xeex tey xëy na nañ ma baal gatsa gatsa la mais mën a nekk kàddu bu gën a ñaw donc lu yëpp nekk lu nga xamante ne tey daf ñuy interpeller en tant qu'acteur tey lii xew dafay interpeller suñu institution et nekk na raison de plus pour que des fois ñu toog xoolante dans bët. waxtaan parce que ça montre ko n'a pas avancé. c'est un précédent dangereux. très dangereux très dangereux très dangereux parce que politiquement c'est un précédent dangereux. pourquoi d'abord j'ai la conviction que Ousmane Sonko aujourd'hui benn leader bu important ci champ politique bi am na ñu ko bëgg am na ñu ko yaakaar am na ñu jàpp ni mooy nekk président ces gens-là ils doivent s'exprimer ils ont la conviction que tey Ousmane Sonko dañ ko tere bëgg tere mu nekk candidat élection dañu jàpp ni seen ay baat dañ koy noot. tey ce serait dangereux que toute cette masse là sociologique jàpp ne Ousmane Sonko bi du bokk ci élection yi loolu c'est déjà un premier cas c'est dangereux aussi ci posture yu muy jël parce que tey leader bi xeex bi mu xeex taxaw c'est une défiance disons-le par rapport à la justice c'est une défiance toujours par, par rapport, rapport à tout un état par rapport à tout un à la justice en institution ainsi de suite lan la mën a jur tey quest que ça peut donner ak bu ñu jógee ci lii ban image la ñu jox ak ban conséquence lañu ëllëg sunu assez assez névralgique su ma ko mënee wax tubaab ba mante ne ku nekk war na xam li mu ci wax ku nekk war na xam ni aussi ku ciy def publication réseau social sax war nga xam ne lii c'est très important pour le pays et j'espère les autorités vont